bismillaahi rahmaani rahim dafa am lu nu baaxoo woon di ko def te itam mbir la moo xam ni ci man lu am solo la ci man wooyo wooyofalowuma ko ci benn jamono ndax wax nañu ne président président de la république bu wàccee ci réew wàcce ca aéroport ba ñu tëggal ko hymne national am xelam dana dal waaye président bu wàcce ci dëkkab jàmbur kenn tëggul la sa hymne national danga am xalaat waaye yaakaar naa ni président bu wàcce ci place ñu tëggal ko hymne national am xelam dana dal kon nanu ko doon defee ngeen جحما ابن النسنال ابن النسنال بخادم الرسول ibnu national bu xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba mi ngeen dégg te xam ko dañu ko laaj ne ko ba nga jógee ba tey yow xaadim ci pexe rek lañu nekk ci yow yu ñaaw lu tax pexe yu ñaaw yooyu dalu la mu ne waxaani daf maa fegal wa faani wattu na ma kay wattu boppam di yàlla sëñ Tuubaa na yàlla muy wattu boppam moo ma wattu moo tax kenn mëna lu ma dara aji not ja moomu wattu kay tere di fekk lu jëm ci ko baax ci lu bon mooma wattu mboolem lor yu ma juboon yàlla daxal na ma ko sëñ Tuubaa ne nag aw yiw yàlla jox na ma ko ku ma ko nga am ko ku ma joxeñ nga amu yiw ma ñëw nee na jamnawul asa wal xayru lil yow ma taayu na bi ma yàlla fegalee ay lor jël na nag ngi si ni yiw jox ma ku ma ne nga amu yiw di nga ko am ku ma joxañ sax nga amu yiw man xaadima sol bu kenn wax mais ma tuddi bopp loolu moo waral gaa baax yi képp ku ci wax la mu wax soo gëmul it noppi ca lan li mu ci nag dafa wax ni رفعني رافع رفعا خفدا من شاءني تقدمي فانخفدا sëriñ Tuubaa ne man kat aji yëkkii ji moo ma yëkki sama yëkkati googu nag ku mu naqare di nga suufe te dootoo yëkkati kon kontaan nañu ci yëkkati gi googu ko yàlla yëkkati waaye ngeen passé ma nag jox ma hymne national su bu sama waa kër maam El Hadji Malick Si وصلت إلى سونمام جوجو يالنا يالنا دولي ليرم مملولي وقتاتن دخو دفي يالنا وقد توصلت يا رحمن يا سقتي يا مهنيا دافو الأوسار ونقمي جوكونا تيو يالنا يا رحمن يا كي دمالي شاي من ديف يا سقتي يو سمن دغر لاي يا مهنيا نو أجو ومجي دافي ولا وسال يومي داخ بكاري ونخم ينجخري ميو واو كو كل الله جخوا كرم دفا وخنا ويكل الجنة آوي الويردي ووالد ووالد كال كالولدي دفا وخني دنا تابل أجنا كو يرسم ويرد دنا تابل على سمي أكس باي أكس جبر أكس يقر كون كوكو أمنا لموخ واو wow. سينا دو خادر ديلان نكم عني خادر دخلن ما امنو ناشونالا مدقيني مومي تامو yaakaar naa ne ku bëgg a weddi di weddi ba tey moom li dane ana kuntu xablal xabla xutban mu bajjalan wa bi bii lam laa ko wa rabbu sammanii dafa wax ni man nekk naa ca ca jëkk ak jëkk xablal ana kuntu xablal xabla xutban mu bàjjalan man ca bu jëkk-jëkk laa nekkoon xutbu mu bàjjalan di ku ñu màggal wa taafa daana wër sax bi ci samay leer man siya lam laa malaaka ya wa rabbu yàlla sax sama ni moomu tudd Seydina Abdou Khadir Jeylaan nee na nit tufliwul tub noppam nag Abdou Khadir dafa juddu ak su a ah, yoor yoor نقلها با نكبر نكفك يا اللي بنت عبد الخالق جيلاني كن كوبا غير دي غير دي غير دي غير دي غير دي بتاعي سينا الإمام من اللي كل الله جه دفع من ياري تور بالنبي ما يشكر لدنيو أك علمو لدنيو دفع نك نياريف ilmu ladani yu moom la joxo yoon ci àlla xadiya waaye dafa am bu ko gën a formé sikru ladani yu ilmu ladani yu moom la joxoon yoon ci àlla xadiya mooy luy jóge ci yàlla directement jëm ci jàmm bi te du am intermédiaire bu ne bër yàlla la rek day dem ci jàmm ba te du am benn intermédiaire bàyyi laa nag yàlla lambe ko loolu mu am ilmu ladani yu yàlla dénk ko muy ëpp nit ñi ñuy ku mu teg loxoom ci boppam na tari alxuraan nga mokkal mu joxati gën a sibru la ne nuyu muy laa ilaha illa allah bi nu sant mu ne loolu nag laajoon nañu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين فقال الدين المعملات لا ننكو يوم محمد الليلة لي ديني من لين دين موي رلاشيون جفلنتي دي دولار دولار كم ننو بكي دفلتي كان نكونا باي سي شخلا باي سي اتي نيو بكي سي نمسونو بيس كوكو موي رلاشيون تي ديني waaye nag suñu àndee suñu àndee sant suñu àndee sant ak askan rek daal di teqala ko àndee sant ak askan rek daal di la ko Sëriñ Lamin mun a jóob rawaan mbay waaw jóob mbay sëriñ daan caw ku nekk daal di gis sa bopp yàlla na teg leen ko foofu mu ne su ngeen àndee askan ak sant rek ne teq la koo dal di am mu ne bi siy njëkk moo di ab muude day ñëw sa kër ne damaa bëgg sa doom ji nga ne ko yow euh, euh, si ñoo bokk nga ni man Assane Ndiaye la ah man uude laa nga ne ko ah, man duma may sama doom uude man duma may sama doom uude da ngeen di déglu xisa boobu ngeen ngeen ràññee li may wax yow da ñëw di uude di aw ñëw gis doomi papa jo bëgg ko man la yow boo dëkk nga ni kuure ah suma doomu uude mais attention li bay lay li bañ a ngoogu na waaw léegi uude bii nga tax ci sa doom ngir ab uude nga dem kan bataa ñiy defari dàll te di ay uude kon ah waa ji la dàq ngir wuute ca mbaar ma boo dañu kër ba taa fekk fa gaa yu defari dal la te ku ñëw ñaan la sa doom nga may na bu jaxsin yonent bi moo ko doon denc da daa ay der di ko jaay te soxna si yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam waaw su tëgg bi ñëwee nag ne damaa bëgg sama sa doom man ko yow foo dëkk nga ni tëgg ca ndëngaañ maa nga dëkk tëgg ca ndëngaañ ne ah man duma may son yàlla musu billah day day umee <laughs> waaw forceron bi defar fourne yi nag forceron bi defar siis yi nag ab tëgg moom it di ah man dëgg rek laay wax di ah, waaw waaw tooliyee bi ak ah, dëgg la ah, waxtasimu bi ablillahi jamian boo ñëwee di laay laay maxtaar laay laay laay maxtaar yàlla jaxasoo ak yàlla dara du fa nekk waaye man nga ni tëgg bi su ma xamee sama doom damay day um uude bi yàlla ne xanaa innal fadla bi yadillahi yuuti man yasaaw xanaa xamu leen li rafet maa ko yor te ku ma neex ma jox ko kon bàyyi laay am solo la su fekkee ne dangaa feebar ba ñàkk deret ñu bëgg laa jox deret groupe ba nga bokk deret ca lañ lay jox deret ndax di nga xamee ci kaas bi ci butéel bi deret ci tëgg ak ju uude pourquoi nga nangu ñu jox la ko bokkal groupe rek lañ lay sol deretam doo ca xam ne puisque boo demee hôpital ca butéeli deret ya doo ci ne kii de ji tëgg la doo ne jii la waaye booy bëgg a dee ci la buñ la solee deret nga jóg duñ la roof ne ne ne ñun ñëpp nanu bokk màggal yàlla di ndax Mamadou nee na alxalqu kullum iyaalu lee rasulilah nee na mbindeef yëpp njabootam yàlla lañu waaw dàq sant rek jox nu sant bi nu sant laa ilaha illallah mooy laay jooju ñu nuy wax te yàlla sawxal na ko ci alquran yàllaa ngi tere sant mu naa wala tunabbisu bi laqaabi bii sa lismul fuxuus fusuux baxda limaan wam la wa man lam yakun foofu day ko musaalimu kooku alquran la mu ne nag góori adduna yi góori adduna yi juróomi góor lañu ku ñu naa wàlli yiw mooy ku yàlla méngool bopp inna waliya laay la si nasal la kitaabu wa yatawalla saalihin ak ku ñu naa waaji muy ku doy ay bokkam ñu naa ko waaji ak ku ñu naa waay muy ku mbubbam rafet te amul dara ñu naan ko waay ak ku ñu naa wayu bi muy ku dul yëngu ci lislaam du ca wax ñooñu mooy juróomi góor yi ak ki ñu naa yonante bi kooku yàlla moo ko wasal ko yónni ko juróomi góor yooyu fi nekk nu waxtaan nag ci lesina iddaawu nubuwata um ñu fi woote woon ak yonante te demul tulaayata min banni astin ca la bokkoon noonu na yàllaa ko yónni musaleymatul kasaab ca la woon noonu na yàlla ko yónni Zaynab bintu Haaris ca te noonu na yàlla ko yónni waaw téere bi ne waaw falima yuhliku llahu kullu mudaayin li nubuwwati kasban fi samaanil qaabil mu ne lu tax yàlla duma ña doon wooteeg yonente ci fen ca jamono ji jëkk ja way jur ko mu bàyyi nag seydinaa imaamu laay sang boobu yestaadu di dollaku am roo mbiram yow man bés baatu yow man ci ginnaaw mu ne fi bisaalika ci lii dalilun ala siqati nubuwwati nee na loolu doy na ci tegtal ne limaamu yàllaa ko yónni ngir ñi ko waxoon te day fen yàlla dindi na ko duma leen ndax sunu boroom dafay def ñoom Sëriñ Lamin conseil des ministres par juróom-ñetti fan lañ koy def yàlla nag at mu ne lay def benn yoon conseil des ministres te mu ngi koy def ci weeru koor ci léegi ko xadri te lay woo malaaka yi ne leen kuy dox ci àdduna diw dina dee diw dina feebar diw dina am diw dina ñàkk a bàyyi ba déwénu ci malaaka yi dali xam loolu moom conseil des ministres am at la par at mu am nag lu mu dénkaani amit yu mu téel boppam yu mu téel boppam nag moom a xam nokki yàllaa ko yoral boppam joxu ko malaaka jox ko kenn ngir bu ko joxoon Ablaye Thiaw moo mu nit foye ko rek mu téye nokkeem moo tax nee na maa ko yor énergie solaire ak énergie lunaire moo ko yoral boppam tàngaayu jant bi ak tàngaayu weeru yàlla moo ko yoral boppam moo ko yoral boppam puisque nee na su ma ko bàyyeeg nit ñi rek ñu am ku ñu mel rek tàngal ka moo tax yooyu moo ko téye li xew ci bés tey jox ko kenn moo ko xam kenn xamu ko mu ne wala si yuriikumul barxa xawfan wa tamaan fa yuhyi la tabaata mawtiha mu ne dina dënnu sax ba ngeen tiit waaye jubluuma ci yéen nit ngeen tiit dafa am gaas bu ciy jóge boo xam ni mooy mooy engrais garab yi ngeen mu dul rooseel xam nga kenn dina tey damay dem àll ba roose ji silaan ba roose ji sumpa ya yàlla na dënn googu dafay am gaas bu ciy jóge mooy engrais bi xam ni mooy sa mooy dundal samay gàncax mooy tax may dënnu waaye jubluwuma ci pour tiital leen leen bindee fi kon sunu borom am na yu mu jox am na lu mu téye la sa des nag mu ngi sant di gërëm di leen jox rendiw déwén rendiw déwén di ñaan sunu borom gunge daaw ko ba nu fekk ren yàlla na nu jàppaat gunge nu ba ñëwaat fi wa ma saalika ala laay bi asisin yàlla na ko def nu ngi gërëm waa kër Seydina Limaamu gi nga daf bokk moom ci nesab di sunu bokki lébu yi nga xam ni lu nekk ñu nga ca lu nu nekk ñu nga ca ñoo ñu ngi ñoo bokk ak baylaay da ngay bokk moom ci kumba dooy wala nga bokk ak moom rek ci alasaan ba yof daj waaye lu nu xew na ñu ngi fi toog kon leen di sant di leen ñaanal ab yokk